salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu ñëpp di leen ziyaara li xew ñëpp yëg nañ ko li xew ñëpp xam ngeen ko li gi dess xam ngeen ko amuñu wax amuñu temps Ousmane Sonko du dugg ci kaso amul benn kaso bu Ousmane Sonko du dugg ci réew mi Macky Sall momul réew mi jog leen ñu taxaw xeex amuñu temps amuñu jot bu ñuy wax ñoo topp nit ñaari atu yàlla naan dafa jigéen naan dafa siif jigéen ñu leen di wax ne da ngeen ni fen li ngeen di wax amul lépp ñëw firndeel na ay fenn la complot bu ñu teg la Mamour Diallo Mariam Faye Sall Macky Sall Dior Diagne Antoine Diome mi nga xam ne dafa la jigéen ñoom ñëpp Moussa Fall Bassirou Gueye procureur ñëpp ñu teg seeni këppatal jël ay gorsu set wicc Ousmane Sonko nday Khady Ndiaye feneen leen ay fen tooy xepp ñaari atu yàlla lu mat ñaar fukki sénégalais Antoine Diome ak Macky Sall rey leen ci ñu ñëw ba tey ci attakaay bi di wax ne loola lépp amul yàqtaan gi ñu doon jiiñ Ousmane Sonko amul waaye léegi dañ koy toppee leneen mooy lan mooy Ousmane Sonko dafa yàq xelum aji Sarr dafa fekk gone goo xam ne amul ñaar fukki at benn yu mat ñu ne ut ab reccantal ut ab porox ndol dugg foofu ne yoon day daan képp koo xam ne day yàq xel xale xale bu am ñaar fukki at ak benn lu ko yées loolu lañ foofu lañ jaar pour mën a bañ a am gàcce ci seen fen yi ci seen complot yi ba fexe ba ut fa parax loolu daan Ousmane Sonko ñaari at ak yu muy tëdd ak téeméeri ak ak ak six cent mille francs yoo xam ne moom Ndeye Khady Ndiaye ñoo koy fay Ndeye Khady Ndiaye di liggéey jël Adji Sarr ñoom ñëpp daan dem ci salon bi Mamour Diallo dem na ci salon bi Antoine Diome dem na ci salon bi moom ak Dior Diagne dem nañ fa def seen ay pédicure dem nañ fa def ay massage billahi wallahi wa taalahi Antoine Diome dem na ci salon bi def massage Dior Diagne dem na fa dafa def pédicure manicure Amadou Sall doomu Macky Sall daf fay dem ñoom Mamour Diallo ñoom ñëpp dañuy dem ci salon bi ñu xam li nekk ci salon bi Basirou Mbacke porte parole Basirou Mbacke Abdou Khadre daawul dem ci salon bi da daan ñëw à côté salon bi déplacé wu jël ay masseur ñu dem fekk ko ci kër goo xam ne xam naa kër ji xam naa ki ko ki ci di commandé ñu di ko massé ku nekk di massé wu ci salon bi tey ñu taxaw ne salon boobu ay caga ñoo fa nekk ay caga yu jaayu ñoo fa nekk ba ne Ousmane Sonko dafaa dem naka lañ bëgg daanee ousman Sonko ñaari asukaso ak dégg nga maam téeméeri junni yoo xam ne dañ ko koy teg ci lan ne nañ dafa nax xale bi dafa nax aji saar naka ngay naxee koo xam ne seqaloo ak moom Ousmane Sonko naka lañ ko bëgg a dugalee kaso ci ñaari at yàlla yoo xam ne fi ñu ko teg mooy dafa nësaxal xelu aji saar yàq xelam ndax aji saar ñaar fukki atam ak benn matul te dañ ne képp ko am ñaar fukki at ak benn képp koo xam ne dañ lay nax ndax boo xam ne tëdd la wala yooyu te Ousmane Sonko ñoom nee nañu violé wul Adji Sarr kon tëddul ak Adji Sarr sequl ak Adji Sarr xamul Adji Sarr Adji Sarr amul téléphone am musta woo Ousmane Sonko Ousmane Sonko musu ko woo salon boobu kër la ay nit ñoo fa dëkk Mamour Diallo di fa dem Dior Diagne di fa dem Antoine Diome di fa dem di wu Macky Sall di wu doomu Macky Sall Amadou Sall di fa wu Bassirou Mbacké porte parole xalif général des Mourides di wu salon bi ñu fi ñu jël ay nit di leen déplacé ci kër gu nekk ci wetu salon bi am ku dëkk ci salon bi dëkk à côté di xaritu Bassirou Mbacké xam borom salon bi bu Bassirou Mbacké porte parole di xalif général des mourides bëggee maasawul dem ñu commandé jël ay masseur ñu ñu dem ca kër kookee maase ko ba pare dellusiwaat ci salon bi parce que moom jàpp na ne kilifa la jomm na muy dugg ci salon bi di maasawu barke alquranul karim da daan maasawu Bassirou porte parole mosuma ko comme da ngeen a bëgg a taal réew ay dooméraam ngeen ay mafia toog ci palais bi di fen ay magum jëmm bijjaaw ba seen tuun yi bijjaaw ngeen nekk réew mi gone duñ ko nangu da ngeen jël yaakaaru ndaw ñi muy Ousmane Sonko ngeen tappale seen i tappale da ngeen ko tëj ci kaso bi daañu leen def lu xasaw doomeraam yi réew mi dina tàkk te yéen mag ñi yéen a koy xam incha allahu rabbi jóg leen ñu xeex amu leen ñu amul waajal amul nelaw dossier yëpp ay génn lépp lu ñu xam nañ ko xam mais nag man du ma waxati dara du ma waxati dara tànk xeexu leen parce wax ji mi ngi bëgg a bari toog déglu rek dañ kumpa waaye du ngeen jóg xeex parce que li lépp sun togay la nañ jóg taxaw xex Sénégal bu fu kenn liggéeyati bu fu kenn lekkati bu fu kenn nanati yaakaaru rew mi di Ousmane Sonko ñu tek ko ay tapala yo xamne dara amu ci bo ba léegi ñuy xex ak ñom di leen wax ne da ngeen ni fen ñu ñëw ba ci pandaw gi ne wa wax ngeen deug Ousmane Sonko de léegi siif giñ na dafa siif ndaw si dañ koy dàq ndax amu ñu ci benn firnde lolu mom amul dañ koy tek fe waye nak dañ ko top ci leneen ci lan ngeen koy topé ne dafa yak xelum aji sar da ko nax da ko nax nax ndax aji gonela aji gonela aji amna na doom aji ba xam góor xamul Ousmane Sonko aji Ousmane Sonko xamu ko mos a seq ak moom lenn du Ousmane Sonko ñëw ci bi comme ni fa ñu bari di ñëwee nan nañ ma maasa sama wet day metti ñu boole ko ñaari masseur muy Mama Ba ak Adji Sarr ñoom ñaar ñëpp ñu maasa ko Adji Sarr ne Mama Ba génnal néeg bi ñu def ko violé waxoon nañ leen ay fen la certificat médical bi ñëw na ay fen la témoin yi ñëw na ay fen la ñëpp ñëw na ay fen la ñu ñëw ba cëppaandaw gi tey ndax bëgguñu gàcce Macky Sall nee na man soo matee damay dagg Ousmane Sonko du ma fontoo procès bi mënu ma cee bëggoon mooy këpptale Ousmane Sonko ray ko ba mu dee ci politique tëj ko ci kaso ba Ousmane Sonko mébét bi sénégalais yi am ci moom du àgg tamit Ousmane Sonko dama ko yóbbaal dama koy rey ba mu dee mais duma ko bàyyi réew mukk sama ginnaaw mu di topp ak samay ñoñ ndax li ñuy def ci réew bis bu ci Ousmane Sonko jotee ñun ñëpp ci kaso yi dee ndax sàcc nañu àll réew fen nañ sénégalais yi mu ne danaa ut pexe ut raccantal fexe ba tëj ci Ousmane Sonko loolu nag bu ko Macky taal Macky Sall dugal ci bépp pap tappalekat sa Ahmed Khalifa Niass bi wax ak i Moustapha Sy Bassirou Mbacké Portokhali rek ak képp ki ngeen ko ñëpp ay naafeq lañ réew mi amul ay kilifa mafia politique maraboutique moo fi am yàgg naa leen ko wax ngeen di ma saaga ndey tey lépp leer na